bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm lu doy waar kawteef am na olof njaay nee na balaa ngaa digle ca ngaay day fekk nga set ki ñëpp doon yaakaar ci moom set wecc mu wëlbatiku taq répp ab sëriñ daara la jàngalekatu arxuraan waaw moom la yoon teg loxo ngir sàkku gum doon sàkku ab ndongo daara bu am lu tolloo ko fukk ak ñaari at moom sëriñ daara bi mi ngi wuyoo ci turu déet bàyyil ñu sutural ko waaye jàpp leen na tur wa ma nga tàmbalee m sant wa n atam toll ci ñeent fukk ak juróom yoon teg na ko loxo ndax da doon sàkku ndongo daara soo xam ne fukki at ak ñaar dong moom la am bu ñu sukkandikoo ci source a mi nga xamante ne moom moo fësal mbir mi siiwal ko lépp a ngi xew ci guddik dibeer gi jàpp altine ja ca ginnaaw quartier gu ñuy wax daaru salaam féetee ca booru mbàkke kuy naan di laqatu soo mandee feeñ surtout nag booy naan loo xamante ne daf laa ëpp doole mandi bay tërëf tërëf yi moom sëriñ daara ba tiitaange la am ca anam ga ñu ko bette waaw li ñu naan jàpp loxo ci poos ba mu ne dung summeeku ba set wecc def na ko ndeyam juree woon lu doy waar mbir ma ma nga xewee ci ab jaayukaayu ndekki ca boobule place la ñu fekk ki nga xamante ne moom mooy sëriñ daara bi mooy sàkku ndongo daara ji ngir dabu ci bànneexam li ko feeñal mooy yuuxu yi xale bi doon yuuxu moo toq ci nopp tëgg bi nekkee woon ci wetu place ba njàqare bu tëggukatu wurusu boobu am ci yuuxu yu mu dégg ci xale bi waral mu dal di jël téléphone am dal di woo koy takk der yi police dal di ñëw simila ak saala anam bu kenn yaakaarewul yoon teg na ko loxo te li ñu koy toppee mooy attentat à la pudeur maanaam ñàkk horma ci jëf-jëf ju méngoowul ak sunu tëralin waaye itam violence maanaam di xoqatal doomu aadama moom sëriñ daara ba nekk ci talaata ji ñu génn defere nañ ko au parquet ca kaso bu Jurbel li gën a doy waar ci mbir mi mooy waxtu wi nga xamante ne way lankateeri ña ngi koy déglu ngir indi ay leeral ci mbir mi nu mu demee la leen sëriñ daara ba jox pour lay la leen sëriñ daara ba jox ngir layal boppam mooy teg ay tànkam am waaw sëriñ daara ba nee na sàngara suñuy wax whisky moom la jël naan cab litre boobu leen litre moo jaxase xelam taqalikoo sagoom googu le litre moo jaxaseem xelam taqalikoo ak sagoom ba tax na mooma mënatul sax nettali li xew ci guddi googu ndax daanaka àndul woon ak xelam lu doy waar lii nag moo tax ñu naan sàngara mooy yi ñawteef li am ba des mooy jëf ju ni mel mënoon nañ koo xaar ci kune ba mu des ci jàngalekatu alquran lii a tax muy kaw kawteef ci képp koo xamante ne dal na ci sa nopp bon nag koy digle cangaay na ne kuy nan di làqatu su man dee dana feeñ jërë